yootu Senghor yi rek rek rek réclancé mbot dèjà di di di di spectacle finalement Senghor bi nga jàpp waaw ndax man jàpp ma xaaruma sax mu dugal ngeen maa jàpp moom mu jàpp mu fermé wu rek man xaaruma déclenché rek nga déclenché Senghor bi booy koy Senghor bi Senghor bi ànd ak yow nga rëpp kadal yow man doon loxo day ñëw day def nga def sa première défaite dans première défaite ci arène carrément que ni waaw ah sax sax damay damay damay sax pour dama am problème sax pour génn doxi

mag yi quoi ak gars yi àndal ne ma yow bu leen yëkkati ba ci kaw dóorlu suuf nag léegi bu ma xawee génn noonu affaire bi xaw maa touché quoi ma wax loolu quoi mu ne Fallou Ndiaye combat ma ko nga leen ma ko na leen naa la sama combat yi ma mos a bëree li ma li ma préparé ma daj sama combat su ma ko daj ci combat te man bi ma la dalee topp mbapat ba arène mosuma gis nga daanu jël bu mel noonu musu mosuma daan jël ak ñoom sa daan jël bu leer boo xam ba daan toog sama kaw te jël boobu dafa dafa leer dafa spectaculaire waaw parce que xam nga bi ñu jàppante. Mhm. maa ngi jàpp parce maa jóge naa maa ngi hésité ma dem wala ma bañ a dem. Mhm. te defet mu li nga déplacé. Hmm. li nga déplacé su boobu ci supporter. waaw wala wala yaag am na benn combat boo xam ne Iba Mar da nga ko duy def ay ay ci kaw. Hmm. booy yi nekk ci kaw yëngal su boobu da nga déplacé lu bari. waaw xam nga boobu boobu noonu maag Arafat bi ma ñëw xam nga comme que jógee naa si defet rek dama doon bëree ñaar dama doon bañ a daam ak di suuraale ay ay ndax damaa damaa bëree premier combat gis booy daj daj daj loo xam wala di def noo xam ne man mootuma woon téye sama bopp waaw man man ne coûte que coûte damaa war am victoire coûte que coûte il aura fallu nga signer une victoire pour effacer défaite bële mais waaw mais bi mu ñëwee ba ci ba ci kii bi arbitre bi waaye soufflé noonu hmm? si la si la première fois arbitre may waaj a bëri sama fit sama fit dem ma ma sentir fi ma fit dem man première fois mu dal ma ci géew defet baaxul defet neexul baax na ma na day defar mbër mais neexul après ñu bëre mhm. léegi damaa jàpp damaa jàpp ngeem li léegi dama doon dama doon tànk pour laal jàmm bëri su tànk bi déclenché rek ma caaxaal ko dëgg de moom njëkk damaa liir li may def sama loxo ma ko yóbbu laal anticipé na action bi nga bi nga amorcé waaw

dafa dama kii yóotu ko loxo bi ma yóotu loxo bi ne loxo mu téye sama loxo bu leen sànni mais ñi ma xam dëgg dëgg dëgg ak ñi may àndal entraîné na ba nga laaj pap Arafa ah, doon dañ koo xam comme jamono ji ñu ko xam nii man gëm naa ne li ma lay wax ni sax kay xam ni comme ni nga ko gis ni mu bëree dëgg dëgg dëgg ah damay dem géej ànd ak gars yi entraîné après combat am noonu ñi ma xam papa papa ma ko xam sax dafa toog moom kese dafa wéet ma ko fekk ruq benn ruq mu toog di jooy mm-hmm. ne ma kii daan la mais xam naa ne mënu la parce que parce que jóge naa ci ay defet ay affaire yooyu noonu doo doo mën a kii quoi. Mhm. léegi nag lamb ji ma génne bay dem. Mhm. Tafa Gueye moo téye. Tafa Gueye bu mag Tafa Gueye bu mag. Mhm. mu ne boo gëmee sa bopp da ngay nekk mbër. mu ne boo gëmee sa bopp da ngay nekk mbër. lii ren laa xamee xam man di nga mën a nekk mbër wala doo mën a nekk ndax il faut nga daan wala nga am yenn yenn yoo xam day ne si yow pour nga mën a nekk nga jël yenn jël wala yenn yenn action yi dal la ci lam nga mën a nga soog a nga dal fu metti nga dal fu metti nga soog a mën a rebondir boobu la ñuy xam la waaw lañ lañ def def problème sax ak ak ak bay quoi parce que ay mois wala wala mois ngi top 5 ah ah parce que bi dafa nu taxaw ko damay taxaw seetaan télé sax du ma ko man damay xaw a déranger mujj ma dem ba adapté aussi di ko xool di ko xool di ko xoolaat dama ma ne ma ne ma sama xel man nit du ma daan ci làmb nit du ma daan ci làmb nit du ma daan ndax bu may bëree mhm. damay damay dama koy teg fu leer nañ noir sur blanc laa koy def ah, lu leer nañ lu leer nañ instant bi demba euh, euh, maanaam demba yéer yi bàyyi na spectacle yéer yi dootul may kenn nga koy àgg fu sori pour mu bëri mais loolu lañ gis après bi nga jógee ci Arafat après kan nga jël 5 tonnes waaw parce que bu may bëree 5 tonnes damaa toog bu mu bëri Arafat damaa toog at année blanche année blanche damay damay toog seen lamb damay jàng rek mhm. damay jàng damay jàng bu may jël 5 euh, euh, tonnes mhm. paa bu xaaxaam ak caat ak rëm. rëm mel ki nga jël dafa diis. ñoom ñoo ko wax ne ma ki nga jël diis na de. kii rëm eh, fële yëmbal mbooloo muy kaas rek. kii du daan kenn kii du daan kenn li muy contact dafa yomb. waaw dafa war a daj lu métti parce que combat la am xam bari déjà bu mi waxee xol. parce que ñoom ñëpp dañoo bëgg ne. Mm. parce que xam nañ li ne si man. te damaa dem benn instant teg naa làmb foo xam ne di joxe lépp au fond pour am blessure pour damaa war a damaa war a ñëw wane ah force ah su mu ñuy entraînement da nga war a présent à boobu noonu bi may bëreeg jël bi ñu wax loolu boobu may bëreeg Singleton euh, maa préparé bac waaw eh, eh, eh, ah, mu mun am handicap wara def wara def war a def kii EPS EPS yu bokay def ak brevet yi pour am blessure yu la don dawaale quoi mo entraînement du mën nangu ak dem naa ma force ma force ma mais sama ma problème diggu quoi ben cogna de bu yemal mboloo Ivoire iPhone moom mhm. ma joxal moo jënd ben élastro la jënd bu bess tax jox ma pour mu mën bëri mais pap dana ma yow ki bu entraînement do ko daan ay ñom ay ñom ciat ñoom ñëpp ma war ni ki dama koy daan dama dama la wax dama len ki suma ko yenwul dama ko daan Pape ne ma bul suñu làmb la am victoire non même bu dee niil sax. daan na daanu rek nañ ne rek yëri de daan na. nañ sa loxo rek fexe liggéeyantu ñu loolu. Pape ba ni may bëree di dem di bëre ji Pape moom gëmul moom daal dafa am dafa stressé quoi mais boo xoolee ay ay jaay ay ay kii ay ay ay caatu yëmbal bi dafa ma kii kii dafa ñëw Zil. coach dafa ñëw dégg naa yëri ki muy bëreel ponkal la quoi da ko ëpp doole lu de jaay doole na ko kon baax na. yooyu moo ko ëpp doole rek loolu moo ni gënal kooku moom beneen affaire la léegi gars yi ba ba ñëw si man ne ma la moo tax gars yi naan la bi ma a baax parce que man damaa xam ne damaa xam bu baax fi ma jóge lamb lu leer leer laa koy teg fu leer mhm. sama combat dañu dikkoon taxaw mu dem ba ci biir faalu ñu yaa xam combat yi yàqu wax damay toog sax may dawaa toog déglu émission lamb mhm. ay ay cinq doon naan booy bi dafa dafa dañ koo tëj ak mhm. booy bi dafa deew mhm. foo nekk ak naan même même booy paralysé sax ñu dinañ la teg sa yooyu nga ñëw nga ñëw bëre quoi moom dafa neex ay waxu dof rek <laughs> kooku moom non non non kooku signature maa ngi dajeek euh, maa ngi ànd ak euh, comme gayan bi laa ne Moussa la ànda mi dem ah. dajeek moom si porte bi Fallou mhm. Ndiaye mu gisee mook cinq tonnes ñoo taxaw bu ma gisee may ñëw dana cinq tonnes yéreeg ne di ñëw mu wàcc escalier yi kaw euh, fële daw dab ma kan 5 tonnes ne ma kañ maye a fii. bala bala ñoo dugg bala ñoo dugg ci kii bi eh, scientifique bi. Mhm. tontu ma woo quoi après beneen booy maas moo ko nekkoon di àll moom di wax man ba tey aw ma lu may wax ak moom. lijjanti woo ko nee naa ko wóor na yàlla du ko waatal ne ma lay daan man xam naa ne man maa la man moom nag moom loolu moo boobu ma koy wax ne da koy tuuse quoi parce que ak gawari bi ni mu toll ak man ni ma toll. mënu mhm. gëm loolu quoi. Ah, ñu dem lamb ji dem ñu dem ba jour lamb ji ñëw même porte porte bi sax amoon na coow lamb ji xawoon naa am yenn coow yi quoi. ñu ba ci lamb ji mu ñëw fekk ma taxaw mu du ma xëpp ay ay ay sabab lu ne xëpp mën na ma ko. lu def na ko mais man damaa gëm ni carrément man dama koy daan te damaa wax damaa leen dama ne ñi may àndal kii du ma ñëwal daan dama koy duma soog a daan. si. jour si ñu usine doole kàddu gi yaakaar naa. kàddu léegi si lañu bëre après ma arbitre soufflé. arbitre soufflé rek bi maa ngi senti ni carrément que ni kii am na gabari de mais yorul yorul fitu fitu fitu kuy nekk la làmb ko maa ngi fit mi ngi commencé gis. te ba boobu gisuma dara lu dul victoire. si lañu bëre moom yëpp moom ba damaa gis mu laaw. Mhm. c'est-à-dire comme que kii moom instant yii nii. kii bi quoi day day day day day mhm. su ma defee nii mu xaw a def nii léegi damay mépp su ma mébee day def nii xët def yoon ma dugal ko koob mhm. déplacé di ko di ko def maa ngi sentir nag ñu doon ñu doon jàppante mu sentir bu commencé xëcc mhm. ma bàyyante waat ak moom déplacé waat léegi bi ñu jàppantee si lañ jàppante léegi ko lii mu contre mu contre am léegi man bàyyi ma contré bi dama ànd mu contré ko ñu naan dem contré ba si yàgg ma jékki-jékki sama loxo bi mu contré ma rocce ko dama poids la boo roccee léegi dama koy teg loxo rek mu jàll poids bi dem na da nga da nga esquiver mu ko téye ba mu forcé ak dooleem yëpp nga rocceeku ma rocceeku teg ko loxo jeex mu wàcc léegi moo ko day daan day daan facilement léegi boo ko si ànd nga yaakaar ne kii mhm. dafa manqué dafa amul doole wala dara parce que action bi si biir li am ci biir bëre bi la quoi contré boobu mu def noonu noonu mhm. moo tax moo tax moo tax jël bi xaw a mel. ni daal techniquement daal utiliser nga ci sa intelligence ba déstabiliser ko daal. waaw monsieur Ndaa li ma la wax nii mooy que ni comme biir ba daan bëree ba daan bëree ay con moment contre Arafat ak contre euh, Lixo. Hmm. dafa dafa wuute ak bii nii quoi. wuute na ak kii kii dellu si. kii dellu si parce que. retour bi kii daan 5 tonnes wuute na ak kii Arafat bëree. Hmm, parce que parce que keroog maa ngi seetaan maa ngi lire journal suñu làmb. Hmm. maa ngi gis gars yi di bind naan fan laa ne quoi la ma tax daaw bëréew ma ren bëréew ma mhm. question bi affaire sama temps quoi pour xulaat bu baax sama plan de carrière plan de carrière sama plan de carrière quoi nit ñi ñu ngi dute quoi da ngaa bàyyi bàyyi damay dégg rumeur boobu quoi mhm. mais daam daam daam si ay kii yu nekk ay yu ma nekk ay réglage yu ma nekk mais bi yéen di dee euh, mhm. de retour Yeri 2 mi bëre ak Ada ak Yeri 2 bi def retour face à 5 donc c'est différent instant bi ci est prêt n'est-ce pas xam nga xam nga yow yow man mën naa ne nit ñi si nit ñi sax ñenn ñi man nañ ignorer bañ maa xam mais yow xam nga xam nga sama je te connais très bien. li ne si man carrément gënu ci lamb. Ah ah, arène bi li ne si man carrément gënu si euh, arène bi. Ah te gars yu bëri na xamuñu loolu quoi. mais léegi lamb ji ni mu demee la xam nga évan instant yi di ngay ñëw rek pour cesse victoire dem si yoon. mais daal instant bi c'est prêt. instant yi moom ah c'est que dama bëgg man ñu jox ma samay comme maa ngi maa ngi sama cinq combats la ma bëgg comme ça ñu jox ma koo xam ne carrément a wane nii nii. comme ay da nga ñëw fii lamb bu ñu jox ay dafa bëri deux combats ay trois combats. booy bu dee da ragal booy yi garaawul mais bu dee ñeme nga booy yooyu noonu. booy yi nekk damay ragal ne ma ne ma rek nañ ma jox diw. man damay damay ragal damay ragal nag ne ne booy ñoo ma ragal quoi au contraire. Ah, booy ñoo la ragal ma ne ma loolu laay ragal quoi. ok au contraire ma defaat booy ñooy fente. booy ñooy fente parce que dangay baax ngay dégg nit sax mhm. jox leen ma yëri de wala nangam ñu dem ba ci biir ñu dem ba ci biir gi nat ci combat bi. mais yow léegi yow sa wàll boobu kan moo war a taxaw sa kanam instant bi kan mooy sa potentiel adversaire. sa potentiel adversaire xam seen naan benn problème la am nag gis nga ma gisee nii. Mhm. booy mënu ma wax seen tur mënu ma wax kii kii nii. mais mais ñi nga war a bëreel booy xam nga leen bu dee da ngaa ragal booy yi garaawul ñu jàll ci leneen mais ñi ñi nga war a bëreel instant bi ki war a jël avance bi ñu jàkkaarloo yëri de koo xam ne tey combat bu taxawoon nekk combat choc mafia bi déplacé wu gars yi feesal tel stade bi yaa ngi may dégg at bi génn sa diggante ak moom ngeen war a jëflante booy xam nga kan la tuddal ma turam man sama xel jox na ma xam naa say potentiel adversaire mais du ma fi nekk dina li ma lay adversaire xam nga ñan nga war a bëri mais xam nga yow yaa am yaa am gën a xam yow xam nga baax ñan laa war a bëri ah, kay xam nga bu baax xam na benn booy bu nekk jàmm ga Liss Ndiago Liss ah, Ndiago Liss Ndiago waaw ah, maa ngi koy maa ngi maa ngi koy dégg de maa ngi gis maa ngi koy seetaan ni Liss Ndiago ay résultat maa ngi ay résultat ah, mais xam nga Liss Ndiago xam ma waaw xam nga loolu noonu noonu xam naa ko xam naa la li may toogee ak yow noonu